برهام baun waraun alifun ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi mbokki talibé yi fuñ mëna nekk ci adina di leen masawu coono ci métit bi ak coono bi nga xam ne ni jàngoro ji teg nañu ko di ñaan yàlla yàlla ko yàlla teg barke bàyyi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mu ànd ak euh, dal ndigal nag jib na jugee ci kan jugee ci Cheikh Mouhamadul Amin waa Dakar yi euh, di ko tuddee représentant xalif bi ci Dakar ma ne ah waa Dakar de dañoo gën a ko gën a muus rek waaye nag moom yemut Dakar moom mooy jëlee ndigal ci xalifa bi mooy wax ne nañ annoncé nit ñi ne gàmmu jëppal bii nga xam ne bàyyee ko jàppoon joxe ko bind ko ci këyit joxe ndigal ne nañ ko def ñu daan ko def yàlla def na nag jàngoro ji ñëw na kenn mënul dajaloo waaye nag comme xam-xam bi yaatu na technologie boobu Baaba Lamin joxe ndigal nekk lu dalee tey fépp fu taalibe bàyyi nekk muy groupe muy kenn ñu mën a jàng kaamil nañ tàmbali jàng kaamil lim bu am nañ ko jox ñu nañ ñu ko jox ñu recensé nañ jàng ay salaatul i lépp luñ man nañ jàng ay istigfaar lépp luñ man waaye yàq yokku na ci rabbal ibaadi ne képp ku ko man tamit bokk na ci ñaan yi nga xam ne nañ koy ñaan ak yeneen ñaan yi nga xam ne yépp mi ngi ci pays bi bokk ci mbootu euh, pays bi bokk ci mbootu euh, tariqa bi képp ku ko xam ña nga dendal na nga ko génnee jox leen ko ñu njàng ko te ñaan yàlla yàlla musal ñu ci musiba mii yàlla delloo ñu suñ delloo ñu suñ sago ma yokk ci nag ne sëriñ bi fàttaliku ngeen ne jamono yële xalifa bi joxe woon na ay ñaan ci làmmiñu imaam ne nañuy jàng junney yàlla tiif ak téeméeri salaatu fàtte di ko jox suñu sëriñ addiya bu ñu ko mënee def suba ak ngoon ñu def ko te ñaan yàlla indi ñu balaa bi yokkoon na ci tamit oh, euh, euh, nu mu tuddati. salaamun qawlan min rabbi rahimin téeméer ak fanweer ak benn. ñu di ko jàng yooyu yëpp ñu boole koog li nga xam ne kii la ñu di ko jàng fii ba bés ba su bésiw le ba jotee nag dana am ay caméra yu dem kër Baba Lamine en direct ñu jël ko mu jàng xatmu bi joxe message am dénk nit ñi ñaanal leen delloo leen ci seen borom comme ni mu ko faralee di def bu ko defee itamit danañ wër euh, bon xam naa jëmu ju tuuti ji président Ansaruddin waa euh, al al fayda Tijaaniya ak waa Koosi ak ñeneen dinañ fi ñëw ñu ne tamit ñu fexe jàllale suñu message mu àddina bi yëpp jot ko bu ko defee tamit ñeneen ñoo xam ne yaakaar nañ ne danañ mën a waxtaan ci bés bi ku ci disponible danañ dem sa kër ci niñ ko manee nga joxe sa message ñu jàllale ko bés boobu di bésu sikkar bésu ñaan bisu fàttaliku lepp luñ am tamit ci waxi bay ak waxi mag ñi nga xamne ñoko ñoo ak borom xam-xam yi fi jaar luñ luñ wax lo xamne man nañ ko segg ci bes bobu duggal ko jallale ko nit ñi di ko gis pour fàttaliku ne bés boobu bési bay la te Sénégal ñun en tant que talib bay am ñi sañ-sañ yaakar ne bes bi bi sallallahu alayhi wasallam juddu woon bes bi nga xamne parce que ñi ngi wax ne euh, euh maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab bi nga xamee ne nii dem na safara gis nañ ko nit gis nañ ko ci gént ñu ne gis nañ ko ñu ne dafay dafa wax ne yi altine bu nekk dañ koy génnee safara wala ñu oyofalal ko safara ba ngir bég gi mu bégoon ci juddug yonent bi sallallahu alayhi kon nag ñu ni tamit bés boobu nga xam ne ci la yonent bi sallallahu ci weeru tubaab te bàyyi tànnal ñu ko mën nañoo am yaakaar ne bés boobu suñ ko dundalee ak ay ñaan ak mbég ci judd yonent bi sallallahu alayhi ak balu yàlla ak dellu ci yàlla yàlla loolu mën naa indi jàmm ci ci ci ci ci ci Sénégal ak ci àddina yëpp loolu mooy solo yu bés bi kon ñoom ñun ñëpp nañ ko waajal képp koo xam tamit am nga loo ci daan def te bugg koo def ngir yàlla te yàlla man looloo ko ba léegi soo ko defee yi tamit dana dimbale ñi defar technique technique bi ak ñi nga xam ne ñoo war a ñoo war a tasaare image yi mu dimbale leen loolu daal mooy message bi nga xam ne ñu ngi ko doon jàllale